maaleykum mbokk yi safoo di seetaan site internet bi di HD 221 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare njiital fa gannaaw tere ba bañu ko tere woon mu amal niki tey ji ab métina moo foofa ca boulevard Ndoyeen bu Mbàkke Ousmane Sonko jamono ji ak ay ñooñam naka mer ba futtu la ñu def lu ko waral dañoo gis ne mbir mi affaire kumba am nday ak amul nday moo ci daal di laxasu ci boobu boobule mbir sax préfet ba moom itamit di dëggal li nu mel tax mu wàccee fa ay takk der yu baree baree bare ci foofoo ca diwaan bu Mbàkke ngir ñu saytu kaaraange gi waaye aussi bañ a yee benn fitna boo xamante ne tey jii war na fa mën a am